mel ni coono yi metti ci caravane bi daanaka doon am sunu borom dafa wax ak ñun ci sóoratul baqara ci jullit mu war a mel daal ni mbaax nekkul ci këpp këppal mën a julli taxut a baax ay message waaye mbaax dëgg mooy nga gëm yàlla mooy lu gëm yàlla mooy baax ki gëm yàlla rek ni muy mel mooy day gëm bis bu mujj baa gëm tiiri yëpp gëm yonent yi yëpp gëm malaayika yi wa aatal maala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil a baax l'islam du pratique l'islam éthique pratique bi dina dimbali pour nga def sa jub ko li nga julli gii inna salaata tanhaa anil fahsaa'i wal munkar wa lazikrullaahi akbar wallaahu ya'lamu maa tasna'uun julli bu la teewoo te bàyyi fenn bàyyi woor bàyyi lekk ak message la wóor gi bu la téewuta bàyyi wax dëgg wóor gi dalay sunal bàyyi ko lekkal te naan kon baax daal mooy mën naa man billaahi wal yawmil aaxir bi waaye nga gëm rek wal kitaabi wan nabiyyiina wa aatal maala ala hubbihi zawil qurba wal yataama wal masaakiina wa ibna sabiil wa saa'il wa fi riqaabi wa qaama salaat doo ko ñëw woote zakat boobu noonu mooy mbaax dëgg da jël sa alal di ko jox ña ko soxla te ñi ci jiitu mooy ndey ak baay ak mag ak doomu ndey doomu bàjjen ku jëfalaat ci baax ba safee damay faral di jàngale leen ab bu gën bu jëlee gan ku ko jox moomu ko mooy ngay dimbalee ci ñëpp ak ñi tumuraan kii ak ña aajowul ndimbal te réew mi ñu bëri aajowul na ndimbal li ëpp ci réew mi ndimbal kon nañu dimbale boo ko defee taxawee li jull yàlla nangu ko bu génnee asaka yàlla nangu ko xol waaye nag na nga xamante ni mooy ci li ëpp solo nit ñi nit ku baax du waaw asan nit ku baax du moy ngul wor nit ñi kep ko sekkal mi fexel bam ko wor mo tax ñaare wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawm al akhir wa hum mu'minuun yuxaadi'uuna allah wal ladina wa ma yaxda'uuna illa anfusahum wa maa amna ñu xam li nga ko dañuy fekk ndax du ay te ñi gëpp moo tax ab julit day dëggal ab julit day dëggal ab jullit day jub ab jullit day leer waaw média bi ci réew mi yëpp accès na ñoo am ak mag ñëpp kon imam ñu bàyyi xel ni mooy nit day fonk kàddoom ba pare wa sabirina fi lbasaayi wa darraay wa xiina albasi mooy ki nga xamante ni mën naa mu ñàkk albasaayi mooy alfaqru mooy ñàkk du ñàkk ba ñam du ñu du mar ba nan tuuti day war a rek te loolu mu dara xaw a jeex ni day gore ak wa mooy ay feebar fi ne ni réew mi kenn wérul waaye jënd jàmbat dama faju rek te yàlla sa borom waxinal yi mooy xeex imam xeex xeex xare doo ànd say nawle bu jub xare ndaw am na ñoo xam ne bu neexee ñu ñëw bu naqaree ñu daw yàlla nee naa xol daw waxee na bët yàlla nee na ñoo ñee uleeg humul muttaquun uleeg lii sadaqu uleeg humul muttaqu ñoo ñoo wax dëgg kon ndekete am na ci jullit ñi nga xamante ni yiifar ñoo leen taree ndax wa minan naasi man yaqul aamanna billahi wa bil yawmil aaxir wa hum mu'minuun yuxaadi'uuna allaha walladiina aamanu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون lu tax في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون mooy am na ñoo xam ne dañuy docteur Malick du ñu ay jullit te ñu ngi ci jàkkee jumaa yi kon nañu bàyyi xel ni mbaax dëgg mooy nit day dimbale mbaax dëgg mooy nit day jub mbaax dëgg mooy da ngay tàmbalee fa nga war tàmbalee mooy sa ndey ak sa baay sa mag ak sa ku jëf mu doonoon sax moo tax koor gii mun ko mi ma fekkon imam di ko wax moy dimbalé rek la dimbalé rek la solidarité partage lolu nak moy jamm yalla gi nga xamanteni ku ko def ta yalla tax yalla fay la ku ko def ta yalla taxul yalla fay la dimbali nit cheikh bi la won woon ñaar dafa am top yalla jamm yalla top yalla mo ya yàlla mën na koo nangu comme mën na ko bañ nangu waye jamm yalla moy nga jamm yalla ci jamm yalla mooy dimbali da fofu la toll kon lu waay mën a taxawu sa mbokkum na ko taxaw ku waay mën a dimbali na nga ko dimbali ndax jamono jii ci bara bii ñu nekk day barabu xam-xam day barabu leer di barab boo xamante ni barab dëgg rek ndax ki nga xamante ni tey jii moo mooy jiite barab bii ngir yàlla ak lislaam donte fii ndax fii barab moo ko cee bokk yow fii fii ma toog nii yàlla mun fi jël ndax moom xëy na ko waaye islam taxawaayam ci lu baax kon at mu jot bii mooy dix-neuvième édition bi ñu def ko média yëpp national comme international ñoom fii ngir la ngir xam ni ñan fa ñuy dem koy sekk kon waxtu nekk jamono ji ñu nekk jamono taxawaay la jamono yi mooy lépp lu bon la waaye jamono yi wax dëgg dëkk suñu sëriñ si suñu sëriñ si wax si leen ba moo ñuy jariñ rek moom mooy royu leen te Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dafa wax ndaw ñëpp fa sayoo turan ila taallumi wa jahidu nufusa bi tafahumi diine da koy xam xam nga yàlla fa may daale la xam naa léegi ñu kii mooy suñu borom dafa ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni imam bindu ma nit ak jinne lu ñuy jaawul ma ابن عباس الا ليعرضني ويخمق فاتل تي عبد الخم نومي جاوا بروم فاتل تي عبد الخم لي يلا تيري مو مرت كو فاتل تي دولي خم نومي جوك اي بوك فاتل تي خم مو نومي ديبلي مو داف جولي با ان واي لا ام جولي لو تامي دي ني سونال بروم جولي بو تاخول مو مو جولي بو دا لا بروم جولي دي سانت ليب دوكو لام لي تيري ليب باي ووكو nun sa bakkan naan da ngay julli julli woo da ngay zinnante mu leer kon bu ko defee ñëpp ñu jàpp te jàppalante xam naa ni waxtu wi jot na waaye dañuy des incha allahu rabbi ci julli ji ànd ko sëriñ bi bu ñu paree ak média bi ak gane ndax yëg nañ ni kilifa yu bari ci réew mi tey fii lañ julli si ak maam ñu bari miim nañu dalaa'ilul xayraat bu imam Jazuli rahimahullah ca Marrakech sabab bi tax mu bind ko daa dem ci àll julli jot mu bëgg a gisut teen waaye amul baax mu nekk ci bay na bay na ba gis ab sàmm bu jigéen mu jiital ak juróom imaamu Jazuli laaj imaamu Jazuli ni ko lu xew mun ko damaa bëgg julli te gis naa teel te bëgguma tiim waaye mu baal xale bu jigéen boobu yër teen ba yër teen ba ndox ma génn ba ci ay loxoom mu tax ko jox ko mun ko lu noo def ba man di mun wax ñëpp dañ ko bàyyi xel ndax sunu mag ñu baax ñii sëñ ci baax la dafa ñu lépp sama wàllu nit sëñ la xaaj ma daal di sama mbir yëpp wala sa li amal wala xaq yaa amal yi si wal mahabbati wa taalim sama wàllu kon ñun li ñu jàpp nañ ci jàpp mu dëgër ka jàpp te na ko doy waaye nañu bàyyi ci lu ñu jàpp ay ولو شاء ربك لجعلنا أمة واحدة ولكن مختلفين yàlla nee na su ma neexoon ñëpp am ci wenn yoon waaye man la neex ñi yeewu nii ñi yeewu naa ñi yeewu na lee li neex yàlla lu koy naqaree kon bu ko defee nañu jàpp ci sereentu alam ni ndax looy di jàpp li ci gën te gën ci kawe mooy sereentu alam ni bi ndax am lu mënul te waxtu wu nekk man ko def te amul lim te kenn def sereentu alam ni bi ba nit dof naa amul xanaa leneen rek

laa bëri boobu dinaa fekk la waaw ndax yàlla ko xool mais nee si man yaqul amanna billahi wa bil axir wa hum muminin yuxaadicuuna allaha walladina ma yaxdaruuna illa anfusahum wa ma yashcuruun am na ñoo xam lu ñu xam waaye moom ñu bokk ci li ma soxla at mu jot mu tëb si karawan xam-xam bi maa ngi gën moo tax ñaari suñu ñëw ci wetam baax ci moom njaboot yi maa def a ngi fi daaw dafa doon waaye tukki bi mu imam mbay gi ne im imam ni ma bu mu tibbi rek ma ni ko naa la nga waxoon noonu laa ne kon bu ko defee ñun ñëpp war nañ laa dëgëral ndax réew mi soxla ñu mel yéen dëkk bi soxla ñu mel yéen surtout soxla na ko mel yow ndax adduna jii ñu nekk jee weesu Maam Cheikh Mouhamadou Mountakha ñoo julli doon sàrma nekk ñu waxtaan

am dara te xamoo ko ñépp te xamoo ko gëm wax ñaari at mu jot daa fi ñëw am lu mu leen jàngal ci sama wàll yi xam naa am naa ci xam xam naa ci dara ndax dañuy wétti ñu maam ñépp ñu tëjee fi karawaan bi wóor na ma ni ay kilifa yu mag ci xam-xam ñu ngi ci biir yow laa ndax suñu soppe waaye mais baa nga jóg wóor na ma ni ñu ngi ci biir